boobu ñuy wax ñu soppi ko ci code pénal 219 tiré 1 lan lu bees la indi lu jar coow lii moom lañu ñu bëggoon a xam. jërëjëf Abdoulaye di. lu yoon bi li ñu euh, li ñu li yoon bi tënk wax léegi lu bees li ñu too dooree foofu ñu xam. jërëjëf Abdoulaye di door di la nuyu di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp di nuyu suma naataango. Euh, Toussaint Manga di suma jeune frère assemblée nationale di nuyu Pape Djibril di nuyu Cheikh Yérim Charles Malal di nuyu mon grand frère di nuyu Pape Malick alors euh, su ñu buggee comprendre bu baax li ñu doon liggéey tey assemblée nationale. du mhm. ñu tëb dem ci deux cent soixante dix neuf tiré un. Mhm. dañuy tàmbale ci article quarante cinq tiré un. Mhm. xam nga code pénal bi. modification bi dafa fekk un ancien code mhm. donc booy jàngat modification da ngay teg la fi nekkoon mhm. méngale ko ak lu bees li mhm. nga xool lan moo ci euh, soppeeku boo jëlee article quarante cinq tiré kooku mooy dugal li ñuy wax personne morale ci responsabilité bi nga xam ne liggéeykatam def na ko loi boobu euh, article boobu daf ne personne morale yi bu fekkee ne dafa am ndaw bu fay liggéey def infraction boo xam ne euh, pour personne morale bi la daf ko wax bu baax pour leur compte daf ko def ngir ñoom bu boobaa personne morale bi maanaam kuréel gi ndaw bi di liggéey dañu nekk pénalement responsable loolu loolu moo changé parce que bu njëkk bi dañ daan wax nul ne responsable que de son propre fait léegi nañ dañ ne boo nekkee ci kuréel di fa liggéey def jalgati boo xam ne da nga ko jagleel fa ngay liggéeyee dafa leer pour leur compte xam nga loolu dañ ko war a jël en compte bu fekkee ne danga ko def pour leneen personne morale bi engagé wu ko mais boo ko defee pour personne morale bi daf koy engagé loolu nga dem article deux cent trente mm. muy beneen personne morale la wax personne morale moom mooy association mun na nekk parti politique mun na nekk ONG mun na nekk société mun na nekk lu nekk kuréel gu munti nekk waaw bu ñu ragal mu nekk parti politique bu ko ragal ah buñ ko ñemee rek mun na nekk daayira mun na nekk lu nekk personne morale moom buñ ko déclaré ca préfecture ba rek mu mm. am récépissé rek mm. personne morale mm. ñu dem ci article deux cent article 238 moom mooy redéfinir li ñuy wax association de malfaiteurs boo jëlee loi bu njëkk ba dafay jël article 238 boobu définir association de malfaiteurs buy definir association de da naan ndaje ndaje bu munti doon boo xam ne dañu déggoo ngir jalgati yoon wala di ko waaj a def loi bu njëkk ba laay wax de jëmale ko ci nit wala ci am-am association de malfaiteurs loi bu bees bi ñëw dindi ñaari terme yu mujj yi nit ak am-am. dugal lan. foofu la yëpp daf ne rek tout groupement formé ou toute entente établie quelle que soit sa dure ou le nombre de ses membres en vue de la préparation ou de la commission d'un crime ou délit constitue une association de malfaiteurs boo jëlee article 238 bu njëkk ba ah ma xool ko rapidement rek jàngal leen ko comme ça ñëpp yem ci daf ne toute association formée quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres xam nga ba léegi même mooy yi lañ am toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs crimes contre les personnes ou les propriétés loolu rek moo ci changé ñu continuer mais loolu dafa am lu tax mu changé ñu continuer loolu dafa am loolu dafa am lu tax mu changé lu tax mu changé mooy dañoo bëgg ni léegi association de malfaiteurs yamul rek ci nga lor nit ak ay ak alal ak alal boo loree état aussi boo loree état wala nga ral personne morale aussi voilà ci la bokk loolu la loolu moo tax ñu dindi ko dafa yaatal dañu dañu yaatal impact bi voilà ñu dem nag ci li ñëpp di xool te amul importance muy mm. article deux cent soixante dix neuf tiré un mm. moom lañ ne lu bees la ci loi bi ma ne leen du lu bees parce que lii définition terrorisme 2007 lañ ko def ma liiral leen ko comme ça mu leer toujours section 7 des actes de terrorisme mm. qui c'est la loi c'est le, c'est le code pénal actuel mm non modifié article 279 tiré 1 même tour entre parenthèses loi numéro 2007 1 du 12 février 2007 mmh. constitue des actes de terrorisme lorsqu'elles sont commises intentionnellement ou en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l'ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales par l'intimidation ou la terreur les infractions suivantes boo lire code euh, réforme bi même texte bi la. ñu dem nag ah. intimidation ak mooy lan. intimidation ak terreur vraiment euh, mun nañ dem ci dictionnaire bi. ñu xool ko mooy définir terrorisme daal. mun nañ dem ci dictionnaire bi ñu xool ko. terrorisme mooy lépp looy def. nga xam da nga teg ci. Mm-hmm. yóbbu après yóbbu fiti nit ñi mun nañ dem sax ci dictionnaire léegi nañ xam xam nga li ma bëgg ñu mottali voilà ñu mottali xoolal ba mu leer ci bopp ñëpp deux cent soixante li ma bëgg ñu mottali mooy lan moo changé ñu diggante démb ak tey après bu ñu neexee ñu xuus ci fond mm. li changé diggante démb ak tey article boobu bu defee chapeau boobu dafay lim ay alinéa bu ngeen ko comparé mënuma ko lim yëpp parce que bu njëkk ba mu ngi amoon douze alinéa bu bees bi mu ngi am seize alinéa yu bees yi mu ngi ne la fabrication l'acquisition la possession le transport le transfert par tout acteur non étatique d'armes nucléaires chimiques etc beneen bi ne les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication beneen bi ne les atteintes à la défense nationale mm-hmm. gis nga alinéa bi ñuy bi ñëpp di coow tey mm-hmm. les crimes commis par participation à un mouvement insurrectionnel visé par les articles 85 à 87 du présent code mu ngi woon ci code 2007 bi mu ngi nii ma jàngal leen ko ñëpp gis ko même alinéa la changé wul alinéa 2 les crimes commis par participation à un mouvement insurrectionnel visé par les articles 85 86 et 87 du présent code ok donc mbir mi leer na. Hmm. li ñuy wax ne que loi bi dafa ñëw. Hmm. pour contraindre liberté sénégalais yi wala pour assimiler manifestation ak terrorisme vraiment man ku ma xam assemblée nationale. Hmm. xam ne que député bu libre la barki démb lañ voté loi de finance rectificative. j'ai voté contre. parce que convaincre ma. je suis dans le groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar du ma député non aligné mmh. ah. mais je suis libre je n'ai pas de mandat impératif askanu Sénégal ñoom ma yóbbu assemblée nationale ñoom laa fa toogal bi ma jotee loi bi hmm. ñaari fan nelawuma def lecture comparative xam ndax loi bi dinaa voter pour wala doomay voter contre gisuma ci dara loo xam ne day assimiler manifestation à un acte de terrorisme. bon ci suma gis-gis. ci suma jàngat waaw waaw Yérim xaar balaa may.